lo bu gaz moo leen di may ndogu dama ne jugal pare heure bi jot na waxtu ki nga dendal mu jug lu bees tàq lay lay indil ndogu li ndogu tey mu neex Ousmane am na problème bëgg régler problème yaa ji indil ko sëñ Galaay pour mu régler problème heure premier bi laa jëlee woon. Ah. bi ma ko ñëwee suñu conférence. jot nga ci. di. aywa daal démba. Hmm. maire bi ci kaw la ma fekk. ah Soda. <laughs> mbaa dóoru la. ba mu ne salaamaaleykum damaa tudd mënuma koo fay. doo cette fois ci daa changé de. naa ma Binta man daal damaa am benn conférence Kër Massaar xaw ma lan lan xotteeku na ba dayal maa bëgg nga musóor ma. musóor meen. ji ma ko may. xam musóor yooyu ñuy raw noonu. ñeme nga temps ba tiim boppam di ko musóor. wala ma muy raw ma ne ko eh fi rawloo ma la tiil noonu may ma rek man mën naa defar waaye ba nii fii bopp bi bu <laughs> yeggee ca conférence la kuy wax waaye moom du wax deretam di fii di circuler bu dee jàng bande kooba nga xam ma la fi fekk. salaamaaleykum Fatou. ah Binta. sëñ bi. je mu ngi solo ko si midi di mel ni surtout Ablaye Kumba Daaru te ab mbindaan rek da nga ne fekk sa jëkkër loolu waroo ko nangu mbubb moom sol tey bu subaa mu sol ma ci des loolu c'est pas normal j'ai euh, envie de toi. nga ni. Hmm, maanaam dama bëggoon waxtaan. ndax man euh, damaa gis ne bi mu duggee ci kër gi ba tey euh, yow si n'est pas à l'aise li tax nag nga bañ ma ba boo ma gisee mel si buti di day génn loolu laa bëggoon nu nu waxtaan ci lan moo tax nga bañ ma nit kenn du ko bañ jikko ja ngay bañ hmm. ndax yow première chose mooy nit boo ñëwee ci kër fekk fa ay nit da sa comportement hmm. yaa ngi dégg ah. xam sa waxin hmm. xam sa jëfin hmm. mais man sëriñ boo xam jëf benn jëfin nit ma loolu ma caaxaan hmm. yow yaa ngi ci ci kaw table yi yaa ngi yéeg yaa ngi xëcc palaat di yóbbu li ma ci gën a métti nag sama doom ji ngay traité fenkat chaque jour loolu moom ma ci gën a métti nit na kenn ko bañ jikko ja ngay bañ kontaan naa kontaan naa fi nga génn nii neex na ma trop nit da ngay correct waaye xam nga nit da ngay correct xam nga olof day wax ni nañ ko jëfe joo gis nañ ko waxtaane moo ko jiitu dangaa xamul rek xam nga su ma jëfee yëfi nit damay nekk nit te man du ma nit. doo mm, mm-hmm. man foo ma fekk maa ginne yi ñooy kuréel hmm. yéeg ci taabal yi yëfi yëfi rab yi may def yëpp rab rab day def yëfi rab te yàlla daa dogal ni rab laa ba fees dell. waaw. ginne yi nga xam ne ñooy jëflanteeg man may connecté wu ak ñoom di bokk ak ñoom guddi bi whatsapp. bis bi yàlla sàkk ñoo may gunge moo tax du ma def yëfi nit lu ma def rek ñoo ma. xanaa xamu ni da ngay tëdd di gént te boo yeewoo li ci ëpp da koy fàtte da ngay jékki-jékki sa xol bi tàng jër te kenn du la def dara loo yaakaar day tas loo yor sa loxo toog am na wala amul xam nga ni xam naa la xam naa la bu baax am na loo xam ne loolu bul gis nit rek di ko gisé ci loo xamante ne ni dara wóor ca nit ko am sëg nga nag. maaleykum salaam an Fatou. bi Aliou na nga def ça va. yaa ngi cool. nice. tey la nga toog. tey sa plat préféré. lan eh. yaasa brisé. yaasa. Mhm. ah loolu war naa neex de trop. tey am naa nag lu mu la bëgg a wax. lu mu bëgg a waxati bébé Aliou. sëñ bi bandi la. ay bébé Aliou. sa sëriñu papa bi mu indi fii mu koy liggéeyal nga taxaw ne bandi la. mais man xam naa mais yéen xamoo leen. waaye wax ma loo xam. yéen lii bi ngeen ko tegaloon ba ngeen ne xorom bi da ngeen ko kaa bi ko docteur bi tere waaw. Mhm. moom mu ñëw fii jël ko yóbbu ko ci néegam. ba pare dugal ko ci biir kamoon bi. man mu dugal ci kamoon bi laa bëgg a mooy lii liiwu ginaar bi ma lan. en ah, reeram ba. te xorom biñ ko tere woon mu dem jël ko dugal ko ci biir kamoon bi. waa léegi yow man ban preuve laa am. mooy moom mu ñëw. waa ginaar gi nekkoon ci palaat bee nekk nii xam nga nan laa def ma gaa jël sotti ko ci mbuus yi moo dem bon appétit bi ñu doon wax waa maa ko def <laughs> ba pare nag dugaloon ko si foon yi bébé Aliou yaay saay saay <laughs> lii lépp nga liggéey maa ko gën a sadik de c'est très bien mais nag defal attention ci sëriñ bi dégg nga maa ko gën a sadik waa defal attention dégg léegi dama léegi ndogu li pare. ba ci kanam. man bébé waaye li mu wax tey na xel sëriñ bii naka jekk ma ne woyu la fii lay ñëw di ratatati lu ne mu dugg ci lu ne mu wax ko ah nan ma mës ngaa mos magak dettuma woon waaye dina xam ne woyu bàndee baayam. léegi li ci des nag mooy fexe nu ma fexe ba gën laa lëkkalik sa jëkkër ngeen gën a ànd. ba nga xamee ne lii yëpp moo ànd ak yow li ngay def du yow danga koy teel wax man tamit. ma teel a comprendre. yaa ma ubbilut da nga maa tëjal boo ubbiwul tëj. ah ni ma la gisee kan nag moom doo ñëw rek di ko ubbi di ngooleeku ne nga dugg ci. yooyu yëpp ñoom ñooy ngooleeku. man mosu toog lu ne dama fi dund ne. ah jaaxaloon na ma. léegi waxi ngoon yi nan ko teg ne la te waxtaan ci jàmm ak salaam ah. ndax sa jëkkër bi fi ñëwee ba tey sama teewaay fii moom laa war a jàppale ba tax yaay mu woo ma jël lépp teg ci sama loxo ñu jin ko téeméeri millions yoo xam ne moom war na maa jox ñaar fukki millions te ñaar fukki millions yooyu ba tey maa ngi koy laaj nangu ma koo jox te bu ma ko joxut ci kaso bi la jëf kaso. te loolu rek laa bëgg moo tax ma taxaw ngir dimbali ko. léegi nag bu ñëwee na nga waxtaan moom xamal ko ne ko ñaar fukki millions yi noo ko mën a lijjanti lijjanti ko bu ko defee jàmm na ñooy ma lijjanti ko mu lijjanti boppam delluwaat ci jàmmam kër gi dellu seen jàmm mën ma ñibbi ci jàmm fa lillahi alhamdu wal sukru hmm. te noonu la. waaw kon léegi naa waxtaan ak kay xoolal hmm. bul tiit sa bopp benn yoon. Hmm. bu dee taar am nga ko ba mu looy. di ñëw ba sa tuñ nii ni mu yameek sa bakkan bi ne copp sa bët yi ak sa tempax yiw yëpp ci taar jigéen la ba yow ngay dëmb rab bu rab bu ndaw nga hmm. kenn dàqu ci réew mi góorgóorlu rek dana baax andi loxo bi jox ma loxo rek waaye <laughs> sama xarit bi waaye na nga góorgóorlu am na lu ma la war a defal après. d' accord. waaw. Binta waay ayca waay ayca waay ayca ku baax nga nag ku baax la eh, nii gën nii gën barkeel alhamdulilah kenn ko ci réew. ku rafet la nag maa xamul nan lay fexe ba am ko rek waaye sama xel ci moom de moom ak Fatou mère bi sax mën naa ko am. waaye yow Binta ana ana ana ana bébé ah bon ah man dama ko gisul kat te fi mu moom mooy loolu. bébé Ali may naa ko. ah may ko. waaw ok c'est bon c'est kon fi baax merci. cey Fatou toog rek lay def sama yaay. di macha allah man moom boo gisee man ma téye la fi boobu ba léegi xam naa. parce que da nga mën toog eh, macha allah. waa. Ah, daf li kenn ko ne yaa moom xew na nga naan ci nga bokk ndax bu ñëwee mu xam place am xam baax fi may toog xoolal man Fatou dàq maa de li may teel a xëy di guddee wàcc moo tax waaye Fatou dàq bu ne nii da ngay nii nii nii. am problème loolu problème am na problème kat. lim la wax dëgg la yow Ousmane lan la ci sëlay wala ci mën lay ah Ousmane li ngay tagg Fatou mi dafa bari yor sa jabar mu jongo ma bay bëgg a dee tubarkalla macha allah nga topp mbindaan ni mbépp mbéppi rek mel ni ko di woo laalo ah Ousmane yow léegi daal da lekk ci gii garab di xooce gee yow daal noonu nga fi nekkee ah Ousmane dëgg-dëgg nag neexul ba neexul na waaye yow na ku fi fi nga nag yow Ousmane xàmmeetuma la de xàmmeetuma la benn yoon. kenn yarewul la nii nag hmm, baax na. waaw yaay lan la. kii sama yaay la. man la kay la de. yow yaay yaa may wax li yow. maa ne nii nag toog boo nekkul ci dëgg rek dama la koy wax nag. waaw boo newu ci dëgg moom dama naan la Ousmane carrément nekkoo ci dëgg amul borom kër gi amul dara. waaw ah, baax na waaw. te la Binta wax dëgg gu wër péng la moom. baax na bala maa dee muy bëgg a rey naa ko gérer naa ko gérer dangaa mën a gérer dara yaay am sa fukki problème a juróom mënoo cee gérer benn. yow noppil amoo dara loo wax gis kër gii maa la koy gérer ba mu mat sëkk gis nga Ousmane bu teggul ci dëgg ma teg ko ci dëgg. ci li ko bàyyi ma xooli gu ba ni noppil yow kenn na sa xol seen fi mu nekk nii te ko am kudd doo lakk maa la koy lijjanti ba mu mat naa la ko réglé ba mu ne cocc yow nag li ma la waxoon démb laa lay waxaat tey. mbindaan day sol sër ak tiset li ngay def teguloo ko fenn dégg nga bu baax li ma la wax yow yamoo ci ko duñu roof la ci gayeta ah binta nañ daw Iya. Yari ngashin. Amma karo. Na gafe ba. Eh. lo bugaaz moo leen doon may ndogoli